néew na jataayu jullit buy daje ba dem te tudduñu fa lu jëm ci weeru koor bokk yi daaw ba ku waaru wutit waaru jot na xamuñu ne daaw ba lu ca waay doonoon ndaw ndaw am na lu yées ci ak ndawam ndax am at topp na ca mu ngi dox jëm ci tële lu ca waay amoon am kàttanug yaram akug wér na ko wóor ne dox na at moo xam ne mi ngi jëm ci néew kàttan ak dox jëm ci wérati waaye it atum lëmm yées na ci lañ fi waroon a dund loolu la muy tekki mooy sunu dig mi gën di jege ci kon boog bu ñu xamee ne àdduna kenn desu fi ñépp dañu fiy jóge di dem ak nu nit ki darajaam mën a toll lu mu yàgg-yàgg dañuy xëy bis rek ku ko tudd ñu ne rahmatullahi alayhi wala radiallahu anhu bu fekkee ku ko jar la waaye lu fi waay am am kàttanit dangay ngay dégg ñoon ancien nangam kon boog ki fi dese li daaw ba ren na waru ci ñi fi nekkoon nak mom daaw te nekkuñu fi ren ki nga xamne yit ren fekk na ko fi ni mom te amna na bo xamne woor ne na ko ne du mën mom. woor it mom na waru ci kooku te fas woor am na kook bu san wax boko ko boo alquran da ngay def alquran lay wax mom lañu ab hakim nee ku yëkëti ay wagg naan maa ngi nii naan mu ngi nii moom moo toll ni ci àdduna ndax ak palam ne ko Firawna bu xelam daju dara nga nettali ko lëf ci nguurug Firawna ga fu mujj fenn laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin foofu la Firawna mujj ba cëgg demee ba desatu ci guy mu ne ay la yëwén texut mu nangu mukk ne yàlla mo yàlla la gaa gëm la wax léegi léegi bok gëm na la gaa gëm kayal ko xamne muso ko nawlo bo deme demee ba naan gëm na li diw gëm ñak pexe fa sos yàlla ne ko ala wa qad asayta qablu wa kunta min al mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman xalfaka aaya وإن كثير من الناس عن عن آياتنا لغافلون وإن أنا كل جاي نانيرة تقول نحن باري على لد نيجو خنا ديجو قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة فمجموي فخسفنا به وبداره الأرض kon alal amul njariñ waaye ku lay jaay aw askan wu baax it mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko woon léegi li la dese mooy neel amantu billahi wa bi rasulihi kep la ilaha illa allah sa mbir jag mu ne mu ne càll ba yàgg mu ne jomm na ko na dee ci na faatu ci gannaaw mbokkum yonent bee na faatu ci la maam mi gëmoon yàlla ne ko ah dangaa yaakaar ne ku la soob mu mel na la sooba innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadi kon dayob aduna ak alal ak juddu bu rëy amul njarin yag yag rahimahullah wala lahnatullah alayhi rek yalla ci allah musal kon mbok ki nara am dimbal deug deug moy ko xamne day xol kim dakar lol xool la ko yàlla teg te mënu koo teggi mu waaru ca ndax ku yàlla teg gàllankoorub yaram ba mënta woor nit ko war na cee waaru ba xam moom bu wóorut koor gii di ñëw bu jàllee fu mu koy fekk ak ci lu mu koy fekk bu fekkee mee ko wér lu ko tee woor na waaru ci ki nga xam ne waroon nag moom daaw te mënatu ko ren kii ko mënatu ren bu wóorutoon daaw nag nu muy demee lu muy yëg faw mu yëg dara ndax su ma dundoon ba génn ci yoo dégg wolof nee na du su ma ko dolli moo ciy topp am na wéréet yoo xam ne du tàggu nit moom ba bañ ba bañ koy wërale suuf wet yépp kaw ak suuf ak ndeyjoor ak càmmooñ moo tax tedd nga ju dul jeex koom mu dul jeex di fi nekk ba faw yàlla rek moo ko moom mom dal eh, am amna ko dañ ko doon mbugal ba dara de setu dul dee di taccu naan mbugal miñ ko tek teg kala mbugal miñ ko tek ba miñ ni di bëgg def dee ni da doon jaay jaay yu amut waye mi ngi bëgg def ne yalla ne ko ne len afa in mitta fahumul demal ak ma ngi ñew dong la maa ngi nit dem waaye da ngeen dama leen fay xaare rek waaye da ngeen ma fa mas a fekk yàlla yàlla du fi du fi béelal kenn béel mooy koo xam ne du fi jóge alxuluud lillah wa ma jaalna li bashar min qablika min qablika alxulda afa in mita fahum alxaalidun kullu nafsin daiqatul mawt kon ñu xam ne daaw ba ren buñ ko niróolee ak basang basang gu ñuy tàllal wala tàppi nañu wóor ne lem nañ ca fukki lem-lem ak ñaar yoo xam ne du dellu si waat la génn góor kuñ xam aw turam na ko santam da ko misaaloon bu yàgg ci dundu àdduna daa wéré di woon léeg la ñu fàttali loola ku amuk wér ak jaamu yàlla jub si gaawal fas ko yéenee màng kuy wutit na ca teey wut ko na ko war a wute day wéré ba ne laaj ku ko seeti mu ne nañ ko ñaanal yàlla mu faatu ñu bari bu ñu wéradee dañuy ñaan ku leen ñaanal ñu wér waaye moom da doon ñaan faatu la ko waral mooy nee na daa gis mel ni ku jaar ci ab pom pont bridge mooy kuy dem Poroxaan wala Gàmbi buy génn Kawlax yoon waaye muy jàdd tiim ndox moo tudd ab pont te lu mu romb rek taxañ nañ ko te agsi na fi mu jeexe te ma ngay dégg ca suuf coow yoo xam ne mosu koo dégg te ab nopp mënu ca dégg lenn te du muyul rawati nag sàkket yi nga xam ne moo ko wër ci néeg bi mu tëdd ci l'hôpital bi miir yi fu mu wëlbati ko ñu koy laaj sa alal ji foo ko jële ak loo ci defagun saa bu gëmmee ñi muy gis day gën a leer ci ab gëtam ndax fa innaha la taamal absaar walakin taamal qulubu lati fi sudur kon foofa ku fa àggagut di tàllale tànk muy tàll di xool di gis di jéer di ko séen di ko xàmmee boo dugalee ci sa gémmi dara nga taf nga xam xàmmee tàng na ak sedd na kaani la wala suukar la koor gaa ngi ñëw fukki weer jàll na yoo xam ne lu ci way defutoon jeex na du dutu ñëwaat te kat li fi jot jaar ci ay xew-xew ak lu nit def lépp ma nga ñu tënk ci ay téere yoo xam ne yii ëllëg kenn ku ne moo jàng ba sam اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا كان سخلو في كونتابل كان نكون لك يا دول سي كونتابل بوب ناخ ادنا دا غاي ديغ نان ديو دنج كون اوديتي موي ديكو ديغلو مي واخ ليك ليك مو لاخدار لو خامني كين خمو كور يالا اك موم واي كارو يالا دا نان اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون du laaj nit ki muy dégg ci noppam di wax ci làmmiñam waaye cër yi la leen cër yi doon jëf lay laaj day taf gémmiñ gi naan tànk foo demoon mu ne barab sàngam gët loo doon xool nangam nopp loo doon déglu nangam ba cër yi jeex suy bëgg a xuloog jëmm jëmmam ji naan li ma shahidtum alayna lu tax ngeen di ma seedeel lii ñu ne ko ah ki daan wax loo kat moo nu wax loo te ku mu wax loo nga wax قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو وهو خلقكم أول مرة مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم كن بوك نن كو واجال نيت ني لي اوب داو مو يي خيو خيو يو <clears throat> كيب داي ديغي سام bu ñuy nettali laaxub daaw ba cafaay laa taxoon cafaay la lam àndaloon ñu di ko taqamti ko ba léegi fàtt nañ ne ñu ngi jëm ci seen dund foo xam ne fii dara du saf ci sa gémmiñ gi dara la mu gënoon bëgg moom lay gën a bañ ñam gënoon a bëgg lay gën a bañ du nangu daal kenn jege ko koo xam ne ñam gënoon a bëgg lay gën a bañ kon bëggut ku ko jege lam gënoon a bëgg ci lu muy lekk moom lay gën a bañ kon bëggatutul lekk fa mu gënoon a bëgg ci fu muy toog ba muy dund moom lay gën a bañ mooy fu sedd fa fu muy jëm fu tàng fa loo taal mu ne fay leen du làmp du ventilateur du climatiseur du rajo du télévision kooku kon dara wutalewu ko ak ki ma junj léegi na daa gis ne lu mu romb taxañ nañ ko te léegi tey mu àgg ca ndatti la kon boog nañu ko waajal suñu borom bi ngi wax ci alxuraan ne na ngeen ragal yàlla ragal yàlla nag mooy lan mooy teg sa tànk fa ko yàlla teglu rek tey xool ëllëg di jéer jëm ëllëg te fas yéene ëllëg joojee ku fa àgg fekk yónnee na fa lu ne gàññ na fret ñi tukki xam nañ ko mooy peese sa bagaas dem sa loxoy neen Yalla na doon bagage bo kotak buñ ko takkarte ci pinch ma rek ko xol neena na na ngeen ragal yalla ta bayyi xel ta japp xel bis bo xamne ken kenn ci yeen du ko walle ñépp ay teewandoo te kenn ku ci nek kit la nga fa feretoon dong bo démé moom la ñuy teg ci sa loxo kenn du na ma li nit ki mën naa dem la ko fa fekk di ko fa fekk waaye kenn du ko yóbbante dara naa ko joxal ma ko diw dune it lii mënu ma ko ñàkk yóbbaale lam la muy am am na ko ba noppi kon bokk bokk yi jaamu yàlla gu mag mu ngi jub si muy weeru koor fan yu néew ku fekk nga am gu wér gaawal ku ca amoon bis bu mu war a fay na gaaw fay bi mu mënee fay ndax kat yàlla nee ci alxuraan léeg-léeg nit ki dee dëgmal ku mu naan yàlla may ma ma àggale lii na ko may mu àggale nangam mu ne ko déedéet xata ida jaa axadahum almawtu qaala rabbi irjiuni laalli amalu saalixan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa xaailuha ku dëgmal barsax amatul wàññiku ومن waraihim barsaxun ila yawmi yubaasuun li mu doon wax ne aw askan alal amul njëriñ yàlla nee na bis pénc duñ laaj ku la jur lañ fay laaj mooy ana loo gëmoon yàlla ana luy sab téere alquran ana ku doon sab yenent muhammad fa ida nufixa fi suuri fala ansaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun يالله يا دفر دقيق طب تمسل الشيطان يكبكم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين ماني.